kooku mën naa ko wax. parce que bi ma Liverpool di soxla peut-être que euh, euh, Manchester United soxla woon na ma Barcelone soxla woon na ma Real de Madrid soxla woon na ma 2002 2000 2000 sax laay wax ban équipe moo ma soxlawul woon. yaa am moment donné boo soxla am na ñoo xam ne ay 100 équipe ñoo leen soxla am na ñoo xam ne benn wala ñaar am na ñoo xam ne équipe yu ndaw yi dama ni 2000 amul benn équipe bu ma soxla woon lu tax ma dem signer Liverpool c'était parce que. Gérard Houllier moo dem gis si Bruno Metsu pour Bruno yombalal ko e et que il avait dit que aussi dafa waxoon ma toppatoo bu baax foofu ndax Bruno dafa nekk kii boo ko toppatoowul xam moom xam naa ay affaire am donc bi ñu demee foofu loolu amul aussi j'ai braqué et c'est tout et j'ai pas j'ai pas j'ai regretté parce que aujourd'hui su ma nee Liverpool euh, fans Liverpool yi supporters du Liverpool yi sont les meilleurs au monde aujourd'hui tey jii fans Liverpool bi fépp fu dem Euh, dañuy chanter sama tur dañuy waxtaan ak man dañuy def lépp et bu ñu aussi le plus important moo di man maa ubbi bal bi maay le premier sénégalais bu fa njëkk dem.